te mooy mu ak xéewal ak jàmm mi ngi ko jëlee ci soxna Asiyatu mii di kilifaam di magam mu jaar ci moom mu jottali leen ko yéen ñëpp. ñi fi teew ñëpp ñi doon jàng alquran ji ci yoor yor ak ñi doon jàng xasiida yi ak ñi nga xam ne dañoo woon ci liggéey bi ñoom ñëpp euh, liggéey nuyoo boobu ak na àgg ci ñoom. sëriñ bi nee na ñi doon jàng alquran ci suba. ak ñi doon jàng xasaay yi ba ci kuréel gu mag gi ak ñi doon nekk ci waañ wi ak képp koo xam ne màggal gi am nga noo ci jàppe ak noo ci mën a jàppe rek sëñ bi nee na mi ngi leen di nuyoo nuyoob lislaam boobu te mooy asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen wax ni rek daje gi daje fii sama njort gënati naa rafet sama yaakaar gënati naa dolleeku sëriñ bi nee na daje gi ñu daje fii ngir yàlla ak yonent bi sëriñ Touba njortam gën naa rafet yaakaaram it gën naa dolleeku ndax yetti ndigal yi nu fi boole benn bu mu ci doonoon rek mu doy ko ci noonu. nee na ñetti ndigal yi nga xamante ne bii moo nu fi boole benn ndigal rek doy na ñu ñu ñu ñu daje fi ñun ñëpp màggal fi nii ñu fi màggale waxuma laa nag ñetti ndigal yi nga xamante ni bii mooy mooy mooy mooy li ñu fi indi. li ci jëkk mooy ndigal li xam ngeen sëriñ bu mag bi moo ko joxe woon. nee na bi ci njëkk xam ngeen ni Serigne Touba moo ci joxe woon ndigal. bi ci topp it mooy xam ngeen ni Serigne Fallou moo ko woote fii. bi ci topp it xam ngeen ni Serigne Fallou moo ni nañ koy defe fii ci dëkkub Serigne Touba fii ngeen ni Serigne bu mag bi def na ko ay at sëñ Modou Moustapha def ko ay at te woote ko woon fii waaye nag boobu ñoom amoon nañu ndigalul def ko ku ne nekk. mu ne laata sëñ Fallou di ko woote fii Serigne Touba def na ko ay at sëñ Modou Moustapha Mbacke def na ko ay at. sëñ Fallou doo te ñoom ñëpp amoon nañ ci ndigal ba sëñ Fallou woote ko fii ci dëkkub sëñ Touba bi. nettali naa leen sëñ Moulay Boussa xissa boobu daaw fii nettali naa leen ko ni mu jot ni nu jote ndigalul màggal gi. nee na daaw nettali woon na sëriñ Moulay busa ndigal li mu amoon netti na leen ko daaw. kon ndigalul sëñ Touba ak sëñ Fallou moo fi daje ak ndigalul sëñ Misbaa bi nga xam ne moo wax ni nañ koy dundal ci guddi gi. nee na li ñu fi dajale ñetti ndigal la ba ca njëkk mooy ndigalu Serigne Touba ba ca tegu mooy ndigalu Sëñ Fallu ba ca teg mooy ndigalu Serigne mu Amadou Misbaa ndigal nag déggoo naa Sëñ Misbaa mu ne ku am buñ la ne woon tëddal nelaw sax bay boo nga tëdd nelaw te xam ne barke daa fekk. Serigne bi nee na dégg na ci waajuram Sëñ mu Amadou Misbaa mu ne ko ndigal ku ko am buñ la ne woon tëddal nelaw sax bay boo nga tëdd nelaw te xam ni ah barke dana la fa fekk ca sa nelaw yooye te lii moon ko digal man ak Pape Fall mi ak fallu jóob ginnaaw bu ñu ko defalee defee ca këram lu mat ñaari at ba mu door noo yebal si fii. sëriñ bi nee na lii sëriñ Mouhamadou Misbah moo leen ko digal moom ak sëriñ Pape Fall mi ak sëriñ Fallou jóob nga xam ne def nañ ko ca këram ci ci teewaayam mu teewe ko def nañ ko ay at mu door leen a jox ndigal ñu defe ko fii ci këram. yabalaat ab taawam sëñ maam tawfeex mii nga xam tey moo di ab xalifaam mu ñëw gën noo faram fàcceel ndigal loolu yi fanaan fi ba bët set maanaam sëñ Mamadou Mispa yebal ab taawam te mooy sëñ maam tawfeex mu ñëw fii fanaan fi gën koo faram fàcce li gën a leer ci ñëpp kon na ngeen rafet njort ci ni ndigal dajale fii sëriñ bi nee na kon ñun ñëpp nan rafet njort te xam ne lii fentuñu ko ndigal la ndigal loolu nga xam ne moo jóge ci sëñ Mamadou Mispa mu jóge ci sëñ Tuubaa ak sëñ Fallu maanaam ndigal loolu rek moo moo nu dajale fii. kon maa ngi leen di sant bu baax ci ndigal loolu yi nga xam ni yéen a ngi ciy jàppale ba mu agsi fii. sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax ci ndigal loolu nga xamante ni bi kilifaam moo ko ko digal ngeen jàpp ci mbir mi di dox ba agsi fii tey. bu loolu weesoo nag maanaam ma ñëw ak yéen ci euh, ak yeete ci. magum taalibe mii ma tiim di bàyyi taala pen euh, doomi sëñ Tuubaa yar ko muy Seex Son yi bu mbakkee métier di woon nettali mbindum sëriñ bi comme nii ngeen ko fanaanee loolu mooy woon métier ba ni mu màggate nii. maanaam maanaam sëñ bi nee na mu teg ci nag kàddu yoo xam ne kàddu yi yeeta la maanaam boole ma ci wax ne maanaam te mu ay kàddu yoo xam ne junj naa ko fi tam ëmb lu bari te wax na dëgg sëñ bi wax na 61 la lama fi Samba indi ma am fi deux ans jumaa yi door a pare jataay bi buñ doon buñ xooloon ñi fi juddu 61 maanaam danañ xaw a dugg danañ xaw a mat duñ feet ab ab ab sept place ñi nga xam ne 61 fekk na ñu juddu ah ba mën a ñëw Touba ñu boot leen wala nuñ mën a ñëwee bëriwul tey doomi sëñ Touba la ma joxoon ma am ci loxoom fukki at ak benn moo tax du ngeen ma gis fenn wër na joor mi sëñ bi li ma gis ci moom maa ko gis mu doy ma ma ànd moom waaye du ngeen taseeg man fenn waaw du ngeen taseeg man fenn waaye nag yàlla moo nu boole ndax Cheikh Ibrahima joor njaar ne lañ tudde sama baay kon bu ma doxee ba ñu daje ci kër ci Ibrahima mii baaye ma nelaw sëñ bi ñëw bi muy dugg ci tànt bi laa ko gis yàlla xiir ma ci moom sama yitte mooy wutal ko fu mu toog xaw ma ci sareet la wàcc xaw ma ci oto la wàcc jëmm ji daal laa gis am ci yaakaar mu doy ma kero lañ ànd ba tey ji jamono jii nag looy wax ñu ni day dóor waaw waaye man ku ma xam-xam yi du ma dóor du ma dóor de waaw neexumaa yor ma attan explorer bee jox ma essence ma taal ko ñëw delluwaat Thiès soixante mille francs la du dëgg mbëggeel moonu boole ak ma xam ci moom ay jikko ak bëgg alxuraan ak bëgg sëñ Touba ak bëgg lu baax ah ma ànd ak moom kon lépp lu ma wax ci moom loolu lu ma gëm la te sama doomu jaay jee ñu tudde ko sama baay muy sama rak rus naa di wax loo xam ne moom bu ñu demee Thiès dana xam ne Baye Talla ab xaalis sa tax muy wax wala dara mooy tax muy wax waaw waaye nag kii li ma xam ci moom gis ko ci moom ba tax ma ànd ak moom barke Serigne Touba Mbakke ku ko xam da nga ànd ak moom. mag moo xam ne nag euh, doomi Sëñ Touba ko yar métier di nettali mbindum Sëñ Touba ñu fanaanee jàngal Sëñ Touba bu waxee mës na cee ay leçons. Serigne bi nee na mag moo xam ne doomi Sëñ Touba yar mu am carrière jàng xasaay cinquante ans sëñ Mamoor moo mu yóbbu Makka. te dara taxul mu yóbbu ma fa loolu xasida sëñ Tuubaa yi waaw moo tax lii nga xam ne dama koy wax sëñ bi moom xam na ni ci sama xol laa ko tibbee te lu ma gëm la kon wax jooju bu kenn jàpp ni ay wax yi benn waay la buy wax noonu di dem rek du loolu da baatu Ibra Pen na sëñ faral di mer tudd sëñ bi nee na dafa dégg ma wax ni Ibra Pène nee na sëñ bi da ko ni li ma yéene ci jaamu yàlla ak sama diggante ak sama borom dama bëgg a bàyyi liggéey bi ma ne ko man ànduma ci nay jaamu yàlla di liggéey beneen bi ci topp ma Ibra Pène ma ni sëñ bi bokk na ci li ma jaaxal ci moom musumaa gis mu mer sëñ bi nag ne ñaari baat yooyu nga xam ne jóge na ci taalibeem bee mu seetlu ko ci moom nee na am na njàggat bu mu ci war a def ibnu abdullahi assaxafi nee na dafa amoon saxaaba bu ñuy wax sufiyaan ibnu abdullahi assaxafi moo nettali xadis bii Baay Taala wax nee na moo nettali xadis bii Baay Taala wax qultu ya rasulallah qaala qawlan antafiu bihi maanaam daf ni man de waxoon naa yonent bi ni ko wax ma wax joo xam danaa ci jariñu nee na dafa waxat moom saxaaba bi ni yonent bi wax ma wax joo xam ne dinaa ci jariñu mu ni ko laa taxdab nee na yonent bi ni ko laa taxdab wala kal janna wala kal janna bul mer bul mer boo merul nee na boo merul da nga dem aljana kon mer nee na kon mer matul di def matul di def lu mata moytu nee na mer lu mata moytu la hadis ci wàcc sax am yeneen nee na xadis ci wàcc sax am na yeneen. nee ñu bu fekkee da laa fekkoon nga taxaw. nee na bu fekkee da fekkoon nga taxaw. li mooy nga toog. boo meree li gën mooy nga toog. bu la fekkoon nga toog. bu la nga toog. li gën mooy nga tëdd. kon mer noonu borom la. nee na kon mer noonu borom la. wolof sax léem na ko. na wolof sax léem na ko. li mu wax ci wàllu liggéey. nee na li mu wax ci wàllu liggéey. maanaam ku bëgg jariñu te liggéey. nee na ku bëgg a jariñu te doo liggéey. maara de Italie da ngaa bëgg a waru. nee na maara de Italie waaye da ngaa bëgg a waru. yonente yi. na yonente yi. ñoo gën a yay ci nit ñi. nee na ñoo gën a yay ci nit ñi ñoom yonente yi. te sunu borom. te jox leen woon ndigal. jox ngir ñuy dunde. ngir doomu aadama yi. yonente yàlla Daawuda. nee na yàlla Daawuda. toogal. yonente yàlla daawuda alayhi salaam nee na yonente yàlla daawuda alayhi salaam dafa wax ni dafa dem ci benn hakim nee na dafa dem ci benn hakim ni ko deema seetlu ni ko deema seetlu boo gisee ci man jikko ju ñaaw boo gisee ci man jikko ju ñaaw nga wax ma ko kooku di ko seetlu nee na kooku di ko seetlu ba mu yàgg mu ni ko ba mu yàgg mu ni ko sa jikko yépp sa jikko yépp xeex nga ko xeex nga ko ba amoo jenn jikko jun ŋàññ ba amoo jenn jikko juni ŋàññ jikko ji ma gis ci yow daal nee na mënu ko jikko ji ma gis ci yow daal nga xam koo dindi xam ne war nga koo dindi mooy ñàkku nit ñi ngay dunde nee na mooy ñàkku nit ñi ngay dunde booba ab buur la na booba waa ji ab la ci ab yonent la moom ab yonent la di jël ci impôt yi ci jullit ñi di jël ci impôt yi ci jullit ñi di ko jëfandikoo di ko jëfandikoo ba ko góor gi waxee nee na bi ko ko góor gi waxee mu ni suñ borom alkuna nee na waa ji suñ borom alkuna moom yonent yàlla daawuda moom yonent yàlla daawuda ni ko may ma métier ni ko may ma métier ci ñàkku mbindéef yi. ba ma mucc ci ñàkku mbindéef yi. suñu borom may ku méccam tëgg. nee suñu borom may ko méccam tëgg. muy defar ay jaasi. nee na muy defar ay jaasi. ak i xeej ak i xeej. ak yu demee noonu. ak xeetu demee noonu. di ko jaay. di ko jaay. jël bénéfice ba. jël bénéfice ba. def ko ñetti xaaj. def ko ñetti xaaj. benn bi. nee benn xaaj bi. mu dundee ko ak moom ak njabootam. mu koy dundee moom ak njabootam. beneen bi ci des. beneen xaaj bi ci des. dimbali ci way néew mu dimbali ci way new doole yi. beneen bi ci des. ñetteelu xaaj bi. mu def ko ci bayti maal. mu def ko ci bayti maal. capitalu jullit ñi. mooy capitalu jullit ñi. am fond pour jàkkaarloog noonu yàlla yi. ñoom julit ñi mën a am fond ngir jàkkaarloog noonu yàlla yi. yonente yàlla Muhammad. nee na yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. woon na juróom-ñeenti métier. métier woon na juróom-ñeenti métier. xalaba xalaba. xandaqa bana wa salaka salaqa raqa qaata xamma baytan baxbaxa juróom-ñeenti métier yooyu nee na juróom-ñeenti métier yooyu yëpp yoon saa sala woon na ko yonent bi daana sàmm yonent bi daana sàmm. ñu di ko fay. ñu di ko fay. daana ratt ay gàtt. daana ay gàtt. ñu di ko fay. ñu di ko fay. daana buub ay ët daana buub ay ëtt. ñu di ko fay. ñu di ko fay. daana daax ay sër. daana daax ay sër. ñu di ko fay. ñu di ko fay. daana yar ay doom. daana yar ay doom. di ko fay. ñu di ko fay. métier yu bari. métier yooyu yëpp. métier woon na ko. nee na yoon saa solo métier woon ko. ngir daw rek. nee na ngir daw rek. ñàkk doomu adamay yi. doomu aadama kon liggéey. nee na kon liggéey. munta ñàkk munta ñàkk. bu ko defee kon. nee na bu ko defee kon xam naa sujet ba ma doon wax ak Ibra. nee na xam naa sujet bu mu doon wax ak sëñ Ibrahima. ba ni ko daa bëgg a bàyyi liggéey. ba ni ko dafa bëgg a bàyyi liggéey. damaa xamatul ban sujet la. nee na daa xamatul ci ban sujet la. waaye daal. waaye daal wax boobu. wax boobu. bu ma ci kenn roy. nee na bu ko ci kenn roy. liggéey ak jaamu yàlla lañu wax. liggéey ak jaamu yàlla lañu wax. waaw ah, nañ fonk liggéey. nee na nañ fonk liggéey. am na benn borom xam-xam bu dëkkoon Touba gii. nee na am na benn borom xam-xam boo xam ne Touba gii la dëkkoon. bàyyi sëñ Jatara Baye Serigne Diatara. dafa jàngal ab dongam. nee na dafa jàngal ab dongam. ba donga ba nekk borom xam-xam. ba donga ba nekk borom xam-xam. mu ne ko damaa bëgg nga wuutuma ci daara ji. nee na mu ne ko damaa bëgg nga wuutuma ci daara ji. donga bi ni ko man damaa bëgg a liggéey. nee na donga bi ni ko man damaa bëgg a liggéey. xalaatee daal di juyoo. nee na xalaatee daal di juyoo. léegi Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana. nee na ba xalaati juyoo Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana. moo bind Irwa un Nadim. moo bind Irwa un Nadim. yam ca yam ca. Baye Serigne ni ko. bàyyi na bàyyi sëriñ ni ko sama ndongo lii dama koo jàngal ba doon borom xam-xam ma bëgg mu wutuma ci daara ji mu bëgg gàntu nee na mu ni ko sama ndongo lii dama ko jàngal ba mu am xam-xam ma bëgg mu wutuma ci daara ji ba pare mu bëgg gàntu mu Cheikh Mouhamadou Lamine Diop dagana ni ko bàyyi ko mu liggéey nee na Cheikh Mouhamadou Lamine Diop dagana bàyyi wax sëñ bàyyi sëriñ jattan ko bàyyi ko mu liggéey daal dénk nag ndonga la nee na daal di dénk nag ndonga la daal di koy bindal ni ko nee na daal di koy bindal ni ko niyaatu kasbil maali faalam arbaun niyaatu faalil niyaatu kasbil maali faalam arbaun wa hiya lisa salabi ilmun yanfau talabu xillin adabu malzalin awnun ala taati nafu muslimun nee na ni ko yow mi bëgg a liggéey maa ngi lay xamal ni maa ngi lay xamal ni yéenay sàkku alal yéenay sàkku xalal ñeent rek la ñeent rek la bi ci jëkk nee bi ci njëkk. talabu xillin. talabu xillin. mooy da ngay sàkku lu lew. nee na da ngay sàkku lu bu ñaarel bi. nee na bu ñaareel bi. ada ummal zamin. ada ummal zalin. boo yéenee ni maa ngi sàkku lu lew. nee na boo yéenee ni maa ngi sàkku lu lew. da nga yéenee ni su ma ko amee it fas naa ko yéenee jooxe faa a jooxe. nee da nga yéenee tamit fas yéenaa bu ma ko amee tamit ma jooxe fa ma ko war a jooxe. awnun ala taati nafu muslimin ñaareelu ponk bi ñetteelu ponk bi mooy nga am yéene tamit dimbali ci jullit ñi. nee na ñetteelu ponk bi nee na mooy nga am yéene tamit dimbali ci jullit ñi. ñetteel ponk bi nga am yéenay dimbandikoo ko ci topp yàlla nee na ñetteel bi mooy nga am yéenay dimbandikoo ko ci topp yàlla ñeenteel bi mooy nga am yéenay dimbali ci jullit ñeenteel bi nag mooy nga am yéenay dimbali ci jullit ñi ñeenti yéene yooyu nee na ñeenti yéene yooyu ku ko am ku ko am dem nag di wuti lu lew dem nag di wuti lu lew mu ni ko wa may yakun kaza yakun kalaamuhu ka zikri ku mel noonu boo dee wax moo xam da ngay jaay naan wàcceel ma saako bee mm. peeseel ma fii mm. sëfal ma ci sareet bi wala ngay ñaw naan indil ma wëñ gee daggal ma lii wala ngay bay naa indil ma ëllër bee takkal ma ràng mi wax ja nga cay wax yàkkun kalaamuhu ka zikri wax jooju mokk ku lal ab deram sangu farata jàpp jublu xibla di tudd yàlla nee na yéen a yow jool nee na jëmm jooju bu demee ba fas yéene dem liggéey nee na liggéey boobu muy liggéey nee na bu koy def mi ngi mel ni mook lam cay wax mokki tudd yàlla jàpp ba sel ñoo yemub yool nee na wa nawmuhu ka zikri ka zikri bu guddi jotee nee na bu guddi jotee bam ni sërëx nelaw bam ni sërëx nelaw nelaw ya muy nelaw nee na nelaw ya muy nelaw moo ku nelawul moo ku nelawul fanaanee naafila fanaanee naafila ñoo yem ñoo yem wa xarakaatuhu wa xarakaatuhu kal jihaadi kal jihaadi yëngu yam cay yëngu nee na yëngu yam cay yëngu karang yam cay ak karang karang yam cay karang karang ku ŋàbb jaasi nee na moo ku ŋàbb jaasi janoog noonu yàlla janoog noonu yàlla di tuurantey deret di tuurantey deret nee na ñoo yem ab yool kon liggéey nee lu mat di def la. lu di def la. lu ëpp bàyyi la nee la. waaw kon loolu. ah nee na kon loolu. jërëjëf Baye Talla. nee na jërëjëf Baye Talla. bi nga waxtaan ak Ibra. bi nga waxtaan ak Ibra. mu wax la loolu. mu wax la loolu. ba nga mën ma koo rappelé. ba mu man ko koo fàttali. Ibra itam. nee na Ibra itam. jërëjëf jërëjëf. ba ma nee na ba mu la ko waxee. fàttewu ko fàttewu ko. xamul lu taxoon wax ko ko. na xamul sax lu tax moom mu waxan ko ko. waxaat ko magam ji. ba mu waxaat ko Baye Talla mi. ba Baye Talla bàyyi ba mbooloo daje nii. nee na Baye Talla bàyyi ba nu daje ñun ñi. ma am occasion. mu am occasion. mën a mën a leeral loolu. bu loolu jàllee nag. nee na bu loolu jàllee nag. maa ngi dénk sama bopp. nee na mi ngi dénk boppam. di leen dénk. di ñu dénk ñun ñii. ñi ma sañ digal. ñi mu sañ digal. xam ne xëy na ay taalibe lañ ci man. nee na te xëy na say. nee na ay mbokk taalibeem lañ. ak ñi nga xam ne. ak ñi nga xam ne. ajiwuñ ci man. ajiwuñ ci moom. nee na waaye ay mbokk taalibeem lañ ba tey. nee na ñooñu mu laabiré leen kon. nee na ñun ñëpp. nanu bokk. bàyyi xel sunu borom. bàyyi xel sunu borom. di ko fuglu. di ko fuglu. ci ay roko ci ay ruko ak i sujjoot ak i sujjoot sabbal di ko fuglu di ko fuglu ci ay muamalat ci ay muamalat mooy di jëflante mooy di jëflante ci sunu biir ci yu rafet jëflante bu rafet di ko teg ci alquran di ko teg ci alquran ak sunna sallallahu alayhi wa sallam bu ñaareel bi nee bu ñaareel bi nañu bëggante nee na nañu bëggante te yàlla tax yàlla rek tax kenn ku ne nee kenn ku nekk na mu yéene boppam na ko yéene mbokkam na ko yéene mbokkam lu ñuy waxante ci sunu biir nee na lu ñuy waxante ci sunu biir na doon lu nu man na doon lu ñu man te lu nu xam te na doon lu nu xam te doon lu nu nar te na doon tamit loo xam ne dañ koo nar bu kenn wax wax morom ma nee na bu kenn wax sa morom loo xam ni loo xam ni wóor na ko ni wóor na ko ni làmmiñ waa ngi koy wax làmmiñ waa ngi koy wax waaye àggul ci xol waaye àggul ci xol bi loolu nee loolu moom la alquran naan moom la alquran naan yaquluuna bi alsinatihim yaquluuna bi alsinatihim maa laysa fi qulubihim maa laysa fi qulubihim nee na ñooñu yàlla nañ ci yàlla musal ci barkeb cheikhul xadim bu loolu jàllee nee na bu loolu ak cant cay topp ak cant moo ciy topp sant naa leen yéen ñëpp nee na sant nañu ñun ñëpp naa leen gërëm nañu eh, te yàlla tax te yàlla rek tax ndax lii ñu def fii ci guddi gi na ndax lii ñu def fii ci guddi gi di jàng di jàng ba mu yàgg ba mu yàgg mu ngëleen mu ba mu yàgg ba mu yàgg. mu sóobu taw mu sóob ab taw. baaj baas bi ni mu doon baaje woo. nee na baas bi ni mu doon baaje woo. gone yi di daw. gone yi di daw di ko téye di ko ndox mi di taa ci kaw. ndox mi di taa ci kaw. ñu dem di andi ay ay ay ay paan. nee na ñu dem di andi ay paan. ak i bërigo. ak i bërigo. di dékkunu ndox mi di dékkunu ndox mi. yéen. nee na ñun. ngeen sax rek. ñu sax rek. ci li ngeen doon jàng. ci jàng xasida yi. li ma ci gën a neex. nee na li ko ci gën a neex. courant bi coupé na fi. courant bi coupé na fi. te taxawu leen te taxawuñ benn yoon. loolu nag nee na loolu nag xam naa moom luy neex ku baax ki lay nee na xam naa luy neex suñ Tuubaa la alhamdulilah tàggat seen baat yi nee na tàggat suñu baat yi ba mu neex ba mu neex jox yitte xasida yi jox yitte xasida yi di ci nab nabi di ci nab nabi ba mu mokk ba mu mokk ba nga xam ni ba nga xam ni mën ngeen koo jàng mën nañ koo jàng ci ak leer ci ak leer juróomi leer yi bët di gisee juróomi leer yi bët di gisee muy leeruk jant muy leeruk jant leeruk weer leer weer leeruk biddiw leeruk biddiw leeruk courant Euh, sawara leeruk sawara ngeen mën ko cee jàng ñu mën ko cee jàng bu yooyu leer yëpp amul nee na bu yooyu leer yëpp amul nag nga xam ne ab xol rek kay gis nga xam ne xol rek mooy gis waaye bët gisatul nee na bët gisatul ngeen mën koo jàng ñu mën a continuer di ko jàng loolu mooy ak mokkal nee na loolu moo di ak mokkal waaw njàng mi nee na njàng mi dañ koo jàng dañ koo jàng xefsan xefsan maa dañ koo mokkal nee na dañ koo mokkal loolu nag nee na loolu nag jàpp naa ni jàpp na ni magum taalibe mel ni Baye Taala nee na magum taalibe mel ni Baye Taala mi du ñàkk du ñàkk mu xam njariñul loolu mu xam njariñul loolu ñaareel ba nee na bi courant bi kuppe courant bi coupé wala boog rajo bi ñu coupé ko wala boog rajo bi waxatul ngeen wëy ñu continuer di ko jàng di ko jàng njàngum doole njàngum doole ma mag ña ma mag ña doon def ci kees njaareem doon ko def ci kees njaareem ci kanam ko baax ki ba bët set nee na ba bët set góor nee na waaw ku ab taw di dàq. nee na ku ab taw di dàq. boo séenee ay bal nooy def. boo séenee ay bal nooy def. ratti rek. rat ratti doq rek. dàq la dàq la. bu ñu soqee ay bal foo jëm. nee na bu ñu soqee bal foo jëm. nii ngeen def moo baax. nee na nii ñu def moo baax. booy booy liggéeyal sëñ Tuubaa. nee na booy liggéeyal sëñ fas yéene. da ngay fas yéene. liggéeyal ko. liggéeyal ko. te yàlla tax te yàlla tax. ba faatu ca ba faatu ca. waaye ngëleen waaye nee na ngëleen tax nga bàyyi tax nga bàyyi wala taw wala taw tax nga bàyyi tax nga bàyyi loolu yàlla nañ ci yàlla musal nee na loolu yàlla nañ ci àgg naa ba ci ni nee na àgg na ba ci ni doon tawte bu doon tawte te téere yi tooyul rek te téere yi tooyul rek nan wëy bu téere yi naree tooy nag nee na bu téere yi naree tooy nag ñu yëkkati ñu yëkkati ba dugg ci kër gi ba dugg ci kër gi seelu continuer di seelu continuer di seelu di jàng di jàng xasida yi kon jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf def ngeen lu rafet def ngeen lu rafet def ngeen lu ma neex def ngeen lu ko neex nee na ndax jëf lu mu tuuti mu tuuti tuuti saxal ko saxal ko moom la ci suñ borom soxla moom la ci suñ borom soxla lu rëy nee nga dagg ko bu ëllëgee nga bàyyi ko nee na yàlla nañ ci yàlla musal bi ngeen dëggul lii nee na ndokk bañ ko daggul nee sant na leen baax gërëm leen baax jigéen ñi itam ngi leen di sant bu baax di gërëm féete ngeen ngeen fi ngeen war a féete li li bari bari ak taw bi lépp ak ngi jàpp seenu njàmbur di déglu mbindum sëriñ bi mbindum di nettali nee kon jërë ngeen jëf yéen ñëpp nee na sant na leen yéen ñëpp nee na ku mu tudd ak ku mu tuddul nee na ngi sant ñëpp Fadala ngi nii ngi nii ren ren ji de moom ko envoyé na ma ay message yu bëri nee na envoyé na ko ay message yu bëri woo ma ay appel yu bëri woo ko ay appel yu bëri di ma rappelé di ko rappelé di ma fàttali di ko fàttali pour ñëw couvrir bés bi pour ñëw couvrir bés bi yàlla xam na ni nee yàlla xam na ni ko woowu ko biig laa koy ay message nee na biig la koy envoyé message di métitlu di métitlu ñàkk gi ko ñàkk invité ñàkk gi mu ko ñàkk invité moom ñëw nee na ndeketoo bi mu ko envoyé message boobu ñëw na ci ba ma ngoon saal kon sëñ Fadel maa ngi lay sant nee kon sëñ Mamadou Fadel mi ngi lay sant baax di sant sa sa waa ji Seydou nee na di sant sëñ Seydou di sant eh, Amadou mi leen yabal di sant tamit Amadou mi nga xam moo leen ngeen yor nee na lii ngeen yor di ci def lu baax di ci def lu baax di ci wax lu baax di ci wax lu baax yàlla na ko yàlla yokk na yàlla ko yàlla yokk ci darajey bis bi ci darajey bis bi di sant nee di sant Cheikh Sam Mbale sëñ Cheikh Sam mais murit bu mag nee murit bu mag moom it nee dafa nekk ku baax. nee na dafa nekk ku baax. matériel bi. nee na matériel bi moo ko toppatoo. muy sonorisation muy sonorisation bi. ak écran géant ngeen di ak écran géant yi ñuy gis. nit ku baax la nee na nit ku baax la. sëñ Tuubaa jaral na ko. nee na sëñ Tuubaa jaral na ko. nee na yàlla na la yàlla fay. presse bépp daal. nee na presse maa ngi leen di sant mi ngi leen di sant bu baax. sant waa waañi. nee di sant waa waañi. sant mboolem. nee na sant mboolem. koo xam ne rek. koo xam ne rek. jëf na ci bis bi. jëf na ci bis bi. ak lu jëf ja tuuti tuuti. wala mu rëy sant naa ko sëñ nee sant na la gërëm na la wax dëgg sonn ngeen nee na wax dëgg sonn ngeen jotaay bi yàgg na jotaay bi na nañ ko yemale foofu rek nee na nañ ko ma jot a wax nee na li mu jot wax na yóbbaale rek la ma waxut na yóbbaale rek li mu wóotu yéen waa Sugeer nee na yéen waa ngi leen di santaat mi ngi leen di santaat encore lii ma wax Pape. nee na ndax lii mu ma wax. mooy dëgg ci man li ma wax Fallou. sëñ lim la wax. mooy dëgg ci moom. yow moom am na sëriñ. bu la ni woon bul ñëw. nee kon doo ñëw. nee na kon moom maa ngi koy sant. nee na kon mi ngi mi ngi lay sant. nee na nee na yéen ñi ñëpp kenn ku ci nekk. muy kuréelu sugeer gi muy kuréelu sugeer gi. nee na man man mi rek maa ab taalibam kuréel bu ndaw bi ñoom Misbah Sarr boobu. nee na xanaa kuréel bu ndaw bi nga xam ne ñun ñoom sëñ Modou. waaye nee na bu gii moom man mii rek di taalibeem. nee na yéen ñëpp kenn am na sëriñ. te jox nga ko guddi gi. te sab sëriñ. te la dara. kon sant naa leen nee na kon sant na leen sant seeni kilifa. di ñaan sama borom. di ñaan boromam subhaanahu wa taala ci borom Touba mu fayal ma leen. la seen kilifa ci barkeb Cheikhul Khadim nee na jërë asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu kon ñu tàllal rek sëriñ bi def ñaan auzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sallam auzu billahi min ashaytaani rajim wa inni a'uuzu bika wa dhurriyyataha min ashaytaani rajim rabbi a'uuzu bika min hamazati shayatin wa a'uuzu bika rabbi an yahdurun bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraatal mustaqim siraatal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wa lad-dallin allahumma ya man huwa hakaza wa la yazalu hakaza wa la yakunu hakaza ahadun siwak as'aluka an tusakhkhira li daqaa'iqa al-arwaahi wa haqaa'iqa al-aswaah wa tufiddu alayya min bihaari al-iimaan wa jadaawi maa yartafi'u bihi qadrii wa yastaniiru bihi fadaa'u sirrii wa anjahu bihi fii mahaariji amrii wa yankashifu bihi sadafu hamli wa xasri fala yabqa malakun ruuxaaniyun ila nqaada li daawati wala cheikhun cheytaaniyun ila asana li sakati yaa azizu yaa jabbaaru yaa mutakabbiru yaa qahaaru aftax lana kulla baabin kunta fataxhu tawi lana umrana saxih lana badana wa hab lana rusdata ضامرا كل أعداء تضر بنا قبل الوصول لنا lana min ladunka rahma innaka anta al-wahhab wastur lana bi sitrika al-jamil fi diini wa dunya bila tasal wastur lana bi sitrika al-jamil fi diini wa dunya bila tasal yàlla yaa xafiis yaa zal wal yaa faaxi nafsi wa diini allahumma salli ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi salaatan tunajjina biha min jami'il ahwal wa taqdi lana biha وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله barkeb Cheikhul Xadim ak kum juróom kum juróom